asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yow suma mbokk góor yow suma mbokk jigéen yow suma pap yow suma yaay yow suma rakk yow suma mag kàddu yi kàddu ñëwent la ak mande lool ak bëggal la lu baax ak yéene la lool ngay julli te julli wuloo ngay sonnu te doo am fay ngay bay te doo góob dara gënu koo metti xam nga lu la bëgg a wax li ma bëgg a wax mooy daa am bu wér jógee ci sab yonant sallallahu alayhi wa muy xadis boo xam ne nii dafa daw yaram te bëgguma nga tàbbi ci yow pàpp bëgguma nga tàbbi ci yow yaay bëgguma nga tàbbi ci yow suma mag bëgguma nga tàbbi ci yow suma rakk yonent bi sallallahu na inna rajula la yusalli sittiina sana allahu allahu akbar yonent nee na nit dana di julli juróom benn fukki at te yàlla mosul nangu benn jullim wallahi suma kawari bopp bi mu ngi taxaw suma yaram bi daw na ci loolu juróom benn fukki at waxuma juróom benn fukki fan waaye juróom benn fukki at laa wax yonentu nee na nit dana di julli juróom benn fukki at borom bi tabaaraka wa taala mosul nangu benn jullim li ma jaaxal ak li suma xel daj mooy julli gannaaw tawxiid julli mooy capitalu jullit su fekkee yàlla nangulut ko ak jullim kon mooy ne àllaaxiraam dara du fa baax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne la ñuy xisaab jaam bi ëllëg yowmal qiyaama muy julli su fekkee ne julli baax na yeneen ya sa des mën naa yomb waaye bu fekkee julli baaxut ya sa des yëpp du baax waaw léegi xanaa li war a nekk sa xel kay mbokk jullit bi mooy lanay waral nga julli juróom benn fukki at yàlla mosut laa nangul benn julli yakaar naa yaa ngi may xaar pour nga dégg loolu xam nga lan la yonent bi nee na laallahu yutimu ruku wala yutimu sujud wa sujud wala yutimu ruku yonent bi nee na mooy amaana waa ji day matal rukkoo te du matal sujjoot wala muy matal sujjoot te du matal rukkoo ñaata si ñun ñooy julli façon julli go mel nii boo sëggee doo siggi soo rukkooyee noonu ngay continuer dem sujjoote boo sujjootee sa bopp sa jëbi ci suuf da koy këpp-këppal teg ko fa ñaari yoon doog a siggi ngir ne moo gën a yomb ngir ne moo gën a gaaw yow mbokk jullit bi yow baay yow yaay yow rakk bu góor yow rakk bu jigéen maa ngi lay dénk góorgóorlu di sàmm julli ci waxtum waaye nag di matal rukkoo tey matal sujood yi ndax gannaaw tawxiid julli mooy capitalu jullit wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu lii laaye biir sa mbokk jullit bu la bëgg la te bëggal lu baax